nous avons ñëwoon pour euh, waxtaan artistes sénégalais yi waxtaan ak la Afrique diaspora pour euh, wax euh, ni ñu biennale 2024 nous di prévoir que du 16 mai au 16 juin 2024 Inch'Allah. et nous allons voir yan artistes pour que nous ñëw wan ñu seen qui biennale bi euh, léegi ñu ngi ci sélectionné euh, juróom fukk ak juróom artistes yu nga xam ne dañu jógee fii ci continent africain mais également ñi nekk ci diaspora bi mun na nekk Océanie mun na nekk Asie mun na nekk Océanie nekk euh, Amérique ak Europe continent yëpp également représenté inchallah et ñaari pays daal la jël comme pays invité d'honneur muy États-Unis bi nga xam confirmé na participation comme pays invité d'honneur ci tout Sénégal Cap Vert est pressenti donc euh, nous attendons leur euh, acceptation officielle donc ci loolu la une exposition yi ñu commissaire exposition commissaire invité commissaire euh, exposition collectionneur également Nous avons également ñu artistes qui mag ont lépp collection yi état bi également ñu def une sélection wane mais ibukaay bi gën a am solo ci biennale bi le fait que ñu delloosiwaat design delloosiwaat également graffeur yeeg euh, street artistes yi ñi nga xam ne def euh, culture urbaine également Tout loolu dinañ ko gis si lu gën a sore muy animation bi euh, programmation musicale bi plateau yi ñuy def fii ci ancien palais et ailleurs également à Dakar donc l'ol dal lañu bëggone wone tay fi ak directrice artistique bi nga xamné doomu Sénégal la doomu France la madame Salimata Diop yag liggéey ci biennale aussi et projet bi mu jox nga xamee ni mooy xàll yoon bi xàll wi euh, loolu la ñu war et décliner ko ci biennale bi di ñëw mai juin 2024 thème bi moy xàll wi l'éveil le sillage ce la nous donc madame Salimata mi en anglais mën en français également. ñu avons gis ni artistes yi nañu pour nous exposer nara exposer ci Biennale Dakar day rek euh, dimension bu Biennale au niveau international day gëna dëgëral aussi une renommée internationale suñu rew culture.